di wax ak quatre ans maa ngi demandé sama jëkkër baat nangu ma may baat lan la ma wax duma la mës a may sa baat duma la mës a may sa baat te mu ñu dund dundam quatre ans mu ñu ne dundalu ñu bëri bëgg nañ ma fi takk sama papa leen di wax pare amagul jëkkëram mayu ko baat donc actuellement je peux divorcer nekkul ne nekkul euh, ne man maa ngi fi France nekkuma ak moom lu nekk def naa ko mais waat na ci àddunam ni duma mës a donc quatre ans mu ngi nii je peux rien faire donc dañoo gëm suñu diine islam bu ñu gëm moo tax tey ñu toog di xaar góor mën na bañ a divorcé marié waat feneen mais ñun jigéen tànk divorcé ñu dañu am amunatuñu marié quatre ans ménopause dafa gaaw jamono jii nii à 38 ans maintenant xale yu jigéen da nga gis à 38 ans 35 ans je veux pas abuser 40 ans mënuñu ñu ménopause donc ñun ñu toog fii di xaar ñu góor bu ñu taxoon moom may ñu baat dundaluñu dëkkoowuñu defuñu dara donc ñu ñu toog suñuy kër waajur amuñu jëkkër amuñu droit am benn relation d'or donc du ma ne amuñu jëkkër jëkkër ji nangu nangu ñu may baat nangu ñu na nekkul suñu jëkkër nangu ñu may baat te amuñu droit am beneen relation d'or donc loolu mooy indi njaaloo yi ñuy def am jëkkër am far loolu lañ koy wax parce que actuellement man divorcé gu ma mais sama man far da nga naan am far donc il faut que vous en parlez damay ni ñaan Mouhamed Ndiaye Abba euh, Ndoye Bane passe partout wax laan wax leen ci lii doy na waar instant bii nii na trop si ñun amuñu fu ñu koy jooyee aussi oh, tamit na ngeen ma baal mais tamit war nañ wax man dama bëggoon nga indi ubbi tam ci loolu ndoy baan ci sa thème euh, de la semaine jigéen su waree am jëkkër su waree su su bëggee tas paraay naan ko muñal muñal muñal est-ce que xam na ni muñ boobu ñuy muñ moo indi lu bari moo indi ay njaaloo indi am jëkkër am far indi lu bëri bien vrai que waxuma ni war nañ ko def war nañu ko def de mais nañuy jàppale jigéen sénégalais jigéen sénégalaise nañ leen jàppale ay jàmbaat lañu mais tamit nañu wax si jëkkër yoo xam ne duñu nangu may seen jabar baat ba di dund seen dund ñoom ils peuvent continuer mais jigéen bi dafay day bloqué nañ ñu débloqué loolu rek laay ñaan nañ ñu débloqué